asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum mbokki téléspectateur u Xeweul TV tey nag seen si Sajardi nag moo ñëw nag indi leen lu bees tàq waaw muy émission njogonal musical waaw soxna njogonal musical nag yow ma ci dafa am ñi nga xam te ni ñoom laay àndal sama émission muy émission ba nga xam te muy daw lundi ba jeudi mooy altine jàpp alxames yow ma ca maa ngi oo képp ku nga xamante ni muy wàllu sponsor nga indi sa njaay ma jaay ko man xale bu pare bi macha allah mu da di jaar lool nag ma di jox rendez-vous incha si seen biir télévision Xeweul TV ci émission njoganal musical